Coco Pulp, un rêve de crème. Pau Pau illumine chaque jour votre peau et vous aide à préserver un teint plus unifié. Pour l'éclat de mon teint, je suis 100% Caro White. Unifie et illumine votre peau. Jij? Jij? Jij? waaw yaay ana ci suba ba léegi alima mu ngi koy woo te jotu ko man ni maa ngi wër ci kër gi ba sonn gisuma ko yaay maa dafa dem voyage maa dem na lune de miel maar war naa voyager yaay te ma ko yëg billet séjour hôtel bi man mii maa ko ko jox yaay maar war na maa def lii Marietou Marietou loolu naka la mën a nekkee maar génn kër gi te tàgguwu la yow mi Marietou lii lépp nag waxoon naa la ko Marietou wujju nga am wujju dëggantaan nga am yow Marietou soxna. oui bébé maa ngi nii ak sama fit si man de wax dëgg yàlla dama jaaxle parce que man bi may génn sama kër tàgguwuma mënoon naa tàggu Marietu Bigué aussi mënoon naa koo tàggu mais li ma def du yoon. <laughs> fi si ñooñu ay jigéen lañu dinañ comprendre fan nga dem. kuy tukki nu muy tàggoowee. yow yaa gën a xam ne nit ñi bu ñu xamee foo jëm doo àgg man nag sama lim dem yeen bi ma jëm ak yow nii damaa bëgg mu neex te bébé. tu penses que man li ma def yoon la. bébé nag arrête s'il te nag. ñu concentré wu suñu lim dem bi yow tamit. mais ñoo xam suñ ko yëgul. waa Sagar looy def ni yow man maa ngi ci naar bi luy loolu pari foot laay def damaa bëgg a gañe gañe lan yow. dama am trente mille te cent cinquante mille la soxla. cent cinquante mille loo koy doyee am nga noo mel de sagar. Hmm. dara bu am classe laa bëgg a jënd. xam nga soxla daa dem lune de su ñëwee rek ma jox ko ko. yow ni nga seytaane mën a jëlaate. Hmm. doo gañe dara da perte ba xalangu. eh daa fàtte ne maa ngi lay maa la ëpp wërsëg yow <laughs> na nga seytaane. sa wërsëg moo primé. <laughs> eh li la mel <laughs> USM. Hmm? Eh, walaay waxal Emu Maria Mariatu M eh, Mar, Mar M Mariatu. Mon papa laa bëggoon ñu je suis un peu plus de doom mon sama papa dafa bëgg ko succéder ci Empire Sport te journaliste naa bëgg de def sama papa buñ ko waxul lii du ko yow nag yow rek laa déglu soo ma waxee waaw ma dem waxtaan seeg moom soo ma waxee déedéet ma bàyyi lépp teg ko ci suuf. Mr. Madonna. What? You're not making an innocent cake. Wow, someone by gender? fréquentation doom bi de. sama fréquentation doom sama doom kan lay fréquenté. xale bu jigéen boobu noonu nekk ci Simon Penda. xale bi dégg naa dafay tux di naan te taxawaalu rek lay def fu nekk lay def bàyyiwul fenn c'est pas bien nag muy ànd ak sa doom. yow kan moo la wax loolu. dama koo dégg. mais foo ko déggee. ci nit ñi laa ko déggee. nit ñi ñoo koy wax ah. ci ñoom laa ko déggee. donc xoolaat bu baax. dinaa ko laajte. tu àll foo xiifee yow la la baax sa jàmm indi woo fi togg ba pare ku nanga toog nga yàq nga eh. bi sama jeeg bi teg togg de moo ci mën masha allah indil ko fi togg lu am gu war mi mm. yow nga lijjanti noo say What big eh? Bigger one. Papa jeda lagi lu nih. Yo bay jam buki. Tanya kan hmm. lu tuh ada lu tanak papa lu ya. Papa mnya gitu ya gitu deh. Nyare. Nyare lu lah ma leen wax ni man bëgg naa ñaareel. waaw maman d'accord na. bii xam nga lu mu doon man bu leen ma fontoo du ma takk ñaareel sama kër mu ñëw di ko perturber xam nga lu mu doon sa bàjjen batoon xamalu ma ko dara xamalu ma ko dara et puis dama koy gëj a gis trop sax du ma ko fi takk nag andi ko sama kër mu ñew indil ma fi ay problème ay eh, papa ngir yalla xana ra bëgg ma sukkal la bëgg am sama fierté nan نديه للبحر su ma waxalee yàlla rek fekkuma fa dara salaamun xawlan bi rabbi rahim ne tekki naa jàpp naa naar bi gañe naa. tekki waaw loo gañe ak ban naar nga Iya, xamuma ci football dara ba sama rak ji yow dëgg te nga. allah sa robu bu rafet wuy ma sama téléphone yoroon naa fa dix mille ma ngir yàlla. ma gañe ma comme yow. tegal sa téléphone te nga Iya, sama clade moo ne. loolu wax de yaa ne woon du ma gañe. la borom man dama la doon rek. dama ma ngir non non bëgg naa ko mais mënuma koo def. waa ah, joué ma rek. Eh, tey rek la naar ba di dee. tey laay joué ba samay cent cinquante mille mat. ciao. ba nii doo ma joué. bonne chance bonne chance. ak a bon. fa soxoon kii. fa bon. Mbige xam naa ne ni nga nekkee fan yi namm sa papa taxul xamewuma la man sa xarit la ak lépp lu mënti am na ya ma ko wax du yàgg ko di ko wasaare wax maa ngi lay déglu man daal sama tante tante

Hmm. lii nag bu ko sa yaay yëg waxuma la ak sa papa ndax affaire famille la mën na faa jaare famille bi tas bàyyil ba sa papa gisee boppam dégg nga baax li ma la wax nañ ko gas suul ko mu jeex fi bu ko kenn bu ko ŋaaŋaat kenn de dégg li ma la wax ah te nga fireeku nag bàyyeekul tuuti.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 100% Caro White. White, le soin 3 en 1 qui hydrate, unifie et illumine votre peau. Dream. Aujourd'hui, c'est le jour. Je dois briller, épater, éblouir. Ma devise Bien dans ma peau, bien dans ma tête. Ok, je suis prête. C'est parti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 képp koo xam ne da nga bëgg a tàggalikook cigarette wala sàngara ku rab jàpp wala ku mënta am doom wala ku néew kàttan ci wàllu sëy wàllu gàllaaj ngir aar sa yaram mbirum samp nit wala gàllaaju kër wala mu jox la daraja ju mat sëkk ak bayre seetil Cheikh Mouhamed Ibrahim loolu mbokk yi moo ma ci doy fii ci biir réew mi mu ngi nekk ci Nord Foire téléphone am 77 187 61 34 soxna يو لان لا لان غاي جوي دافا ام لوما خلات ريك سما خول جيخ دافا ام لو خلات سا خول جيخ مي تاميت شيري بول فاتني لوند ميال لا نيو نيك اي جوي خاجو في مي لان لا ma bi ma nekkee xale dañ ma violé woon. nga ne lan yow. ma yaakaaroon ne viol bi yàqu ci man dara maa nekkati loolu yóbbu na sama ndaw. mais yow looy wax ni mais yow mais lii c'est grave kii dañ ko war a porter plainte. maa ki ma def lii. Semua lu kawak esor do ko gëm soxna mais waxal mau waxee mais mën na la soulager <laughs> waxal rek ñu xam benn yoon mu jeex quoi wuy ma bàyyil sa jooy yi nga wax ma kan moo la sama papa nga ni lan sama papa mau moo violé sama Bador looy wax ni yow sama ndijaay sama dia ma ca alaxira moom moo la violé non mais c'est pas allahu akbar sama ndijaay ma mau <laughs> fenn fenn fenn yow nag amoon na ay doute ci sa yar waaye tey jii la ma leer ni yow doo coupable victime bi noppil noppil noppil noppil bul jooy noppil noppil xew animal maar dafa dem lune de miel dem lune de te tàggoowul dañu am urgence suñu marchandise yu génn ñu war ko enlever il faut mu bindal ma chèque mbaa fa mu dem soriwul ah génnul Dakar de léegi yow may ma ma ñëw woon la ko passe moi allez allo Alima Je jëlal oto nga fekk ma comme un ok lay Quand kan fekk ñu fi Alima mais lu dossier pour ma faire signé moom lay indi pour ma signer ko parce que c'est urgent. mën ko yónni chauffeur ma indi ko bu ñëwee nga signer ko. soxna Batoor yow ban problème nga am. amuma benn problème j'ai aucun problème amuma benn problème. kii de du mareetu waaye nag wax na dëgg alalu golo ca lex ba yow bi ma xamee ba tey est-ce que danga maa mës a xam ci lu ñàkk fayda walla ci loo xamante ni man waruma ko def doxuma ci sax waxuma ci man magum jëm la moom waruma surveiller benn xale bu góor la nee na mooy doomu mère Diop mère Ami Diop. waaw léegi moom lan la bëgg. nee dafa ñëw Sénégal monter benn entreprise de pêche ak ay partenaires am bëggoon boo leen ñëwee ngeen gisante. nee ko gisewuma ak moom ok. waaw Sagar la lu xew. daaw. lu dara nga toog fas sa kanam gi nii. naar bi moom rëcc. ban naar moo la rëccati. dama zee ba am soixante dix mille ma ne naa continuer ndax cent cinquante mil yi mat fan ma perte yëpp. kon da mujjee perte. da nga woon fii laa leen di ma nga bañ te xamoon nga ne di nga perte. Eh. indi sa dix mille ma joué ah. la. sama dix mille. danaa dof xanaa doo laal dara man sama dix mille dama koy denc ko guddi ma jënd ci connexion loolu laa ak sama jëkkër. indi 1000 francs ma gagné la 40 000. doo dégg xanaa 5 francs ma ne doo ko laal doo laal dara man ak naa def ni dara na dem ma dem. demal li ngay bëggee. yàlla réseau bi coupé. tiit bay bëgg a dee. waaw damaa bëggoon nga dem balaa kenn di la fi fekk kenn di ma fi fekk mais soxna si man dama toog déglu xaar ba sonn dégguma kenn woo ma awma benn information moo tax ma ñëw may ma rek daa am ñu ma war a waxtaanal léegi yow boo fi ñëwaatee laajteel àll n'est-ce pas que yaay doomu Ami Diop si man la waaw defal li ma la wax demal rek ba beneen ok am soxna si nga jàpp ci lii cent mille francs bëri na de non bëriwul loolu du dara n'est-ce pas Ah, yaay soxnaam Ok. jërëjëf. merci beaucoup. ok au revoir. André. doomu Ami Jóob bi moo fi ñëwoon te mi ngi noonu di dem neen dafa jóge Espagne ñëw Sénégal fii taxawal fi entreprise ah yaay nee na dafa bëgg a gise ak maar de yaay damay bañ ko ma mere de ndax yaay maar bëggul ko ko tudd turu kooku te bëggul tamit yaay kuy wax ay waxam nee naa ko nag bu fi ñëwaatee mu laaj àll ndax man mii yaay yëguma cinuma bareetu yaa jur doom mun a jur ma ko kenn mënu si dara kenn mënu si dara su ma sañoon reconnaître naa doomu Ami Diop boobu bu yàgg un rêve de crème. Pau Pau illumine chaque jour votre peau et vous aide à préserver un teint plus unifié. Pour l'éclat de mon teint, je suis 100% Caro White. Unifie et illumine votre peau. nagagi pétier c'était un aussi nagagi tasum saja un fel aussi nagagi déggal sa góor bëggu ko nagagi seer sa njëkke dëgg si nagagi yaxal sa jabar sagal ko nagagi bul ko may dara yanu ko nagay nga nga Sénégal wuyo